waxoon na ne faala la ak faala ñoo bokk ci amal ak isaabatu dégg tey nag mu ñëw ci nga xam ne faala moo ko beroo su paree mu ñëw ci nga xam ne faala la moo ko beroo ci maana waxu jëlal anil la nga joxe biza ci za muy biza ci faala mufradal muy lu wéet maanaam loolu da koy dëgg si ismu ayin ismu goo gis mu nekk sulaasi nekk ñetti xaraf mën nga ko tëgg faala bu ko muy tekki joxe naa ko tamru mooy tàndarma boo wax joxe naa tàndarma tamartu tamara mooy joxe na tàndarma jox naa ko bik yaa ngi dégg waaye day ñëw nag yii nga tëgg faala li nga xam ne yaa ko créé day ñëw ci baabu nasara faala yafaulu lay doon xanaa lu mooy lu ci am xiyaas suba ah, yafulu comme nasra yansuru tamara yet muru ngay wax hmm. ah, parce que yaa créé kon si bunt yafulu lay ñëw hmm. lu mooy nag ya ca jàdd ya am xiyaas hmm. xam ne nii am na buntu bu maa def yafalu suuba da ngay asaaxu قام نمج دفا من خصه دينغا ولا في دينغا لا في عصي دينغا ولا ولا نعرف إيش وقد جلال ان الجحل بزا اي فعل مفرد من ويت عن الاول تي بو بي كون فعل مو جابو فعل لا بوكو في الاقص سي جيل و اك جحل فالاول بو نك مو جيل ك خمغا سولوس موي نيتلو خاج بوغو جيل نو سولوس بيغي سلاس المال جيل نو سولوس بي ربع المال جيل نو ربع waaye rabaa yarbahu ngay wax parce que dafa xam xar falq jël na osur bi waaye moom nag ka nasara dafay ñëw comme buntu nasara yafulu ilaa ala xalqiyaha lu may bu am mujj am xalq ka fa al qiyaas toppal qiyaas ba maanaam boo gisee lu ko ci qiyaas bi daa dem ca bu dul nag def ko yafulu mu daara وكان خساه موي دين نكوك بكوك موي لي تخ نيت كي نيك غور دي نيك غور كي تابلو ني توج نعم دين سوسيتو بوجي خساه موي اخذا خزيته نعم موي دين نكوك كوك با وقلب النخلة موي جيل قلب النخلة بي قلب امغا موي خولو تاندل léegi boobu bëggee jël na ko danga xalab baxu <coughs> kon lii beneen xiyaas yi la lépp loo gis mu nekk sulaas mm-hmm. nga bëgg wane danga koo jël tëgg ko la rek ismu bi bu ko tëggee faala rek muy tekki jël nga ko wasaani ñaare mooy joxe mm-hmm. lépp lu nekk sulaas yi nekk turu jëmm mm-hmm. mën ngoo tëgg faala mu nekk joxe naa ko tamartuhu jox naa ko tàndarma nuzulan ngi ganale ko ak lawantuhu jox naa ko laban soow laxamtuhu jox naa ko laxmu gi firi yàpp mu indi ci shaahid ci woy arab mu ne qaala woon ida naxnu lam naqrin mudaafa zabihatan tamarnaahu tamran aw labannaahu raaxiya labannaahu xam nga nuun gi moo tax nuunu mutakallimin yi moo tax ñu def ko sadda labana rek la waaye naxnu labannaa ngay wax labannaa mu ne ida naxnu bu fekkee ñun lam naqri berndeeluñ almudaafa ka ñuy ganale zabihatan gàtt gu ñu rendi hmm. buñ reyul gàtt ganale suñ gan hmm. tamarnaahu ñu jox ko tamaran tàndarma aw labannaahu wala ñu jox ko soow raawiyan mu woy ñun moom buñ reyul gàtt rek jox la tàndarma ak soow hmm. dégg nga ca kaabu nag moom wax ne yax du day fa yalxamu muy jox yàpp laxama ah. yalxamu mu def ci yalxamu nag parce xaagi dafa nekk a xalq ci digg ba dégg nga fa yalxamu mu jox yàpp mu sax ay yalxamu baax na laxamu ataaw laxma mhm. dir xaa ñaari doomu gaynde ay chuma seen dund laxmun yàpp la mel xaw bu jugee ci nit ñi maa fóoram buñ fëram ci suuf <coughs> xalaat yi buñ daggati kon ismu boo gis mu nekk ñetti xaraf man mhm. nga ko tëgg faala muy tekki jël mhm. wala joxe na boobu comme ni nga ci doon ni nga ko doon tekkee faal faal tëggee faala muy tekki defar nga ko wala nga tëgg faala muy fekk jot nga ci jot nga ko maanaam jëm nga ko wala dóor nga ko wala jotee nga ci moom wala boog nga tëgg faala muy tekki jëfam yooyu mën nga tëgg faala tamit mu tekki jël wala joxe yi nag da nga koy takk bu baax baax a baax ndax yaftaxu lakal abwaaba wa subula xam nga lu mu waxoon yaa koy gis فالفعل من يحكم تصرفه تصرفه يأخذ من اللغة الأبواب والسبل يا أبو أبو يا خم نكون دخول جي خاموس جيس كسر جيف دي جيف يا يا يا في خمرك <coughs> لقي فعل دين كتب شيء اسمه عين ما أنا يمي يم أنا جو خنك وحنك مينونك شيء اسمه معاني ما أنا دوهم ما أنا يو خم نيجي عرب فعل لين كيرف مميت كم نيجا خمرك waxoon na leen ne luy tekki bindiri yaram fanwula la bindiri xaaji yaram bi faila la loolu maanaa la du ismu aynu moom la ko ñëw nag ci faala di la waxee maanaa sàngam faala lañ koy tëgg mooy waj ma lépp luy tekki dajale faala lañ koy tëgg ba farriq teqaleel lépp luy tekki teqale faala lañ koy tëgg waati joxe luy tekki joxe faala lañ koy tëgg moom nu am xañeel mooy am liy tekki bañ wala téye faala lañ koy tëgg tëgg wa foofu tudd luy tekki wax faala lañ koy tëgg wax liñ notal luy tekki xalab faala lañ koy tudd wa defun ak jeng luy tekki puus wala défendre faala lañ koy tëgg wa idaawoon ak lor bii ci faala xasala am na luy tekki lore faala lañ koy tëgg maanaam yi jàpp xam nga ni maanaam yomb naa jàpp parce que mën da ko way moo tax da way yomb naa mokkal moo tax ab ab borom xam-xam daal waxuma nag <coughs> dégg nga nga ku mel ni man nga xam ne nga lii rek di wax waaye borom xam-xam dëgg-dëgg mooy koo xam ne lu jaram mokkal daf koy mokkal dafa yoo xam ne daf laa tënkal lu bëri yooyu da nga koy mokkal bayt yooyu bu ko waaye léegi jamono ji ñu ngi toll si jamono yoo xam ne sëriñ daara yi ñooy jàng ñooy jàngal dara ba pare di la forcé nga mokkal ko forcé la ba nga mokkal ko ñu di la si nga téye bu ñu lay bàyyi nga nga rëcc <laughs> foofu lañ toll waaye gis nga bu njëkka laa ilaha illallah jàngkat yi boo leen junj rek ñoom ñu demal seen bopp bu ñu war a mokkal duñ xaar sax nga nga nga nga mokkal loole dañ koy gaaw takk ko bu njëkk sax moo tax daañu nangoo bind ndax bañ a sukkandiku ci lañ bind bëgg affaire bi def seen bopp yi loolu moo taxoon ñu si woon bind mm-hmm. loolu moo war loon bu njëkk dar su may lisi amul tari da nga xam ne jàngkat yi ñu am fula lañ dañ lay jox darsu bi rek sëñ sëriñ bi ñëw rek toog si séesam joxe darsoom wóor na ko ne ñii comme gaynde yu xiif yàpp darsu bi duñ ci sàgganee dara moom kay dañ ci yokk waaye duñ ci sàgganee dara moo tax bu ñëwee dinañ ko sax déglu ndax am na confiance ne mokkal nañ ko ñoom it duñ yàq mukk seen temps dañ koy jàng ba mu mokk bu ñëwaatee suba gi day joxewaat dars ba mag ñi sax noonu lañ daan jàngale waaye léegi ku ndax xale yaa ngi tayal tayal goo xam ne nii boo leen déglu darsu bi dañuy dem tëdd bu suba teel ñooy jëlaat daal <laughs> te mbokk nañ ko ñàkkee ay noonu fulla léegi tax léegi système jàngale nga mu soppeeku <coughs> te soppeeku day gën a métti yow jàngalekat bi yaay jàng yaay jàngale yaa leen jàngal ba pare toppal leen loolu sax loolu sax tax sax ngay gis dañuy enregistré darsu yi parce que buñ du ko déglu sax duñ duñ ko toppal leen. jàngal leen waaye yaay jàng yaay teg système boo xam ne da tax li ñuy jàng dugg seen bopp yi sax ca bu saxee nga fexe bu mu génn di nafat ak nafataat nafataat nafataat nafataat nafataat booy bàyyi mu dem kon yii juñu la mokkalal bayti yi bayti yi mokkal ko lu ko daree mm, tafaan la bi bi fan la la الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي مكسور عين ولا فعل يجب وفي مكر نعم. واجمع دفعل جمع بوزن فعل لبلو تك دجال فعل لنكو تك كجمع دجالنا وا مكر نظم وين كتب صح دجال دجال ليتك متفعل لنكو تك لب لي تقل جل تقفانا وفرق تقلل كفرق تقلنا فصل فصلنا قسم سدلنا أمو يبدأ في فيه تقل فانا لنك تقل وعاتي جوحيل منع مينا نحل جوحنك كدو وهب مينك لي تك ما يفعل لنك تقل ومنع لي تك ترى منع ترى حصل آينا حصل آينا كبتي فعل لنك تقل وفو لي تك وقت نتقتلنا قال وحنا سرخ يوخنا بكاجوين ويب كدو لي تك لي faala lañ koy tëgg baa xam na wax luy tekk noteel xalaba not na xasara not na ko xaxara not na ko yooyu faala lañ koy tëgg wa isaan luy tekk lor kalasan màtt na ko ak ladaxa <coughs> dégg nga jaan na ko a safara si lakk na ko yooyu faala lañ koy tëgg luy tekk lore moo tax dara ba sa faala lañ ko tëgg na dafay tekk ko Hmm? ma madaxa sàqar bi na ko yëg nga ko yëg foofu kii faala baaxul ma <coughs> léegi nag la daxaak la sax lay wax ne wa ijaamul xarfay ni tomb ñaari xaraf yi foofu muhammadul ni la ceerab nga tomb daal gi xayin gi amut nga ne lazaxa amut lazaxa amut moom koy boo tombee xayin gi foofu nga neenal daal gi wala boo tombee daal gi muy zaal xam nga nee na ayn ladaxa mu am nga tomb xayn gi bàyyi daal gi wala ladaa am nga tomb zaal gi bàyyi ayn gi waaye tomb leen ñaar ñëpp ñaari xaraf yëpp muy ladaxa foo muhammadul nee na la ci langu arab amul ci arab ka ihmaal himaa comme neenal la ñoom ñaar nga ñàkk tomb benn ne ladaa amut bu fekkee ne da tomb ayn gi muy ladaxa kooku mooy firi lu am tooke matt na ko boo tombee zaal gi nee na ayin gi muy lazaa mooy firi safara si lakk na ko waaye tomb ñaari araf a foofu muhmal lu ñaanal la lazaa ka ihmaalihima la ñoom ñaar ñëppit hmm. nga ne ladaa kooku lu ñaanal la hmm. ana amul ci laa nga rab daal xaaral hmm. woon shaa'ir waykat bi <clears throat> wala duxun matt li di zum min ñeel tooke bi ihmaali awalin te mooy neenal daal ga mooy nga bañ a tomb daal ga <laughs> wan naari safara bi himaani zaan yi boo neeralee bu ñaareel bu dee tomboo ayin gi waaye daal ba nga tomb muy lazan loolu mooy safara si lakk na ko faari fii xamal loolu ne taxawal na nga taxar soppeeku bii ci faala luy tekki lañ koy tëgg waxawil luy tekki ja na nga jàllar bi ko faala lañ koy tëgg wastaqira na sax luy tekki sax benn place faala lañ koy tëgg wasir na nga dox luy tekki dox wala daw ak yooyu faana ko tëgg wastuur na nga suturaal luy tekki nëbbu faana lañ ko tëgg wa na nga rafleel luy tekki simmeeg yooyu faana lañ ko tëgg wa aslix na nga defar luy tekki defar faana lañ ko tëgg war mi na nga sànni mën na ka sànni na rafet <coughs> bii taxawal luy tekki soppeeku faana lañ ko tëgg comme raxala dem na zahaba dem na madaa yooyu yëpp taxalu lay teg faara ko koy teg waxawil jàllal bil comme xalaba jàllal bi na ko sarafa sopp na ko na nasaxa bind na ko sin boo wala na yaakaar na yooyu faara lañ koy tëgg da ngaa jëlee fii yóbbu fële wastaqira saxal benn baax sakkana dal na xatara xatana dëkk na sawaa sax na nazala wàcc na yooyu dafay sax benn place faara lañ koy tëgg wasir doxal comme rasama gëlëm gi daw na zamala daw jamaza jamaza yëpp xeetu daw lay firi kooku dox lay tekki faal lañ ko tëgg wastur nëbbal ka satara gi firi nëbb na xajaba gi firi muur na xabaa gi firi denc na xam nga loolu ak nëbb lay tekki rek moo tax xijaab faal ak luñ muur la faal lañ ko tëgg boo jërit na nga rafleel comme salaxa fees na kaseta dagg na ko maanaam génn na wuñ wuli na der bi rek xasara xoli na yooyu yëpp dindi lay tekki faal lañ ko tëgg wa aslix nasaja ràbb na xaata ñëw na rafaa ñëw na wala daax na yii faal lañ koy tëgg war mi mën na balaa luy luy tekki sànni faal comme xasafa xasafa mooy nga sànni lu ndaw comme nga teg ko sa baraamu ndey bi rek sànni ko xeet su ndaw dégg nga wa xasafa lu mag xew mag nga téye ko ko lañ koy tëgg ak rajama gi na yooyu faal lañ koy tëgg kon maani yii ci ñaari béyt yi mooy waj maa wa farraq bu aan wa foofu واغلب ودفع وإيذاء بي حصل بي تحول وحول واستقر وسر واستر وجرر وأصلح وارمي من نبلا يفعل لنكو يتقو المعاني التي معنا يغا خمنا ديغا يختص دنا جاغو بيات من فعل لا فعل لا فقد دون معنى يفعل لا جاكو لا عندي قال وانا الحسن يعني لكو يلا فاي من بالمقدمي ci lañ jiital xaaki na nga niroole faxla la dana ñëw pour niroole dara ak dara kooku faxla la rek moo kam faxla mu ko dégg wajaxalan na nga def bii ci moom woo bii ci moom wajaxalan na nga ca def faxla dana ñëw ñu tëgg ko ci ismu ayn nag it tekki ne jëmmi aynu boobu da koo def ci leneen comme narjasa jël narjas di ko ci saafara si mm-hmm. wa ci moom nga feeñal ismu ayn ismu ayn boo xam ni rubaa yi la nag nga tëgg ko faala la ngir wala feeñal nga ko dinañ ci ñëw awistur wala nëbbu dégg nga wala nga wane ne moom nga nëbbee dara moom la joxe misaal nag xarmatu ni ki simaana albina tabax ba ci lan ci raax waaw nëbbu nga tabax ba rek xarmat mooy firi sima nga ne xarmatul binaa simaana tabax ba maanaam muuree naa ko ciment kon mën ngoo def ngir wane nëbbee nga ko ismu aynun bu nekk ñeenti araf nga tëgg faala ngir wane moom nga nëbbee dara mën naa nekk fo bi faala la ci faala al muqaddama ba njiital xaakii na nga nirole di tegtal di tekki alaa moo xaakaati ma siixa minu ci nirole lañ ko tëgg limaanu si ba ilee ñee lañ ko askane faayil mën naa nekk faayil ka alqama nekk jikkoom xam nga alqam garab gu weex la alxam rubaay la garab gu weex la nga ne alxamu fulaanun diw weex na maanaam xaakal alxam dafa niroog alxam da tëgg ismaayil boobu faala la ngir niru la ko waa ji kooku moom mooy weex aw ma foon wala nga koy niru la nga ko askanee sama naa nekk ma foon ni ki xaqrabtu lem naa asuduxa karaw yi kaabaab ya mooy karawu wet ya ay lawaytu lem naa ko kan aqrab mel ni génn jiit dafay lem dafay lemoon nga ne aqrabtu ay xaaka al aqrab dafa niroog aqrab jiit dafa niroog génn jiit gi ko lemoo noonu la karaw gi <coughs> kon da nga jël gis ni mel nga tëgg ko faana la nga tëgg ko faana la niroo leneen ne yaa ko def yaa ko def jiit maanaam jiit naa ko rek mm-hmm. jox naa ko melo jiit mm-hmm. xam nga lii mooy mu xàkkar mm-hmm. kon léeg-léegi boo xam ne nii ñeenti xaraf la nga tëgg ko faan la ngir nirule moo mel noonu lay doon la nga ko nirule moo foon la ak askaltu yor naa ashaara karaw ga ay arsaltu yoor naa ko on school mu melni ci cëggi ma xam nga ci ma da fay yoru deug la upp na ñeenti taraf waaye ci sarif ci gisaane ñeenti taraf la nga ne askaltu bu ñuro na ko askal yoor naa ko bam ñuro ko askal lol moy muhakat wajalan mooy ji indil bii ci faala ay lu mën a mu ji indil bii ci faala daal lan muy tegtalaala jaal yi ci def ko fii seen ci dara mën nga xool loo xam ismu ayni la nga tëgg ko faala la ngir wane def naa ko ci dara ni ka narjasa def na narjas dawaa ahu saafarat narjasa narjas na dawaa ahu ay jaaltu narjas fi dawaa yi nga ne narjastu dawaa la da nga koo tëgg la rek ngir wane def nga ko ci برمي كل لول من هناك وزعفر هو دك مجي زعفران وفلفل فلفل نتعام ونجنب ما جعل في الفلفل وكذبره أي جعل كذبرة كذبرة من قومك وهي خير سفر إلى بوك تنو أمين وقل وكذبره أي جعل كذبرة كذبرة خمر اسمعين له kon man ngaa fekk loo xam ne ni jëmm la yoo xam ne ni tur wi ñeenti araf la ñu mën koo def ci dara nga tëgg ko fax la nga wala def nga ko fa loolu mooy wañ alan bi bii azir ni ki baramat ashajaratu ay azharat feeñal la al buruma buruma mooy kambóot mooy lay ëmb fleur bi balaa fleur bi di génn loolu xam nga da nga koy ëmb ba pare mu door a fekk génn لو ما يبرو عمر فلان مو فلور يا خلي مو أم مجن مو برام يجين بني وخي بر عمر أسجرتو ما يجرب بفين يلا برو عمر برو عمر تو لو بقول أنا برو عمر تبي فين نا جرب بفين يلا برو عمر بي دور من أظهرت الشجرة البرو عمر يلا بر عمر الشجرة تقل برو عمر تفعل لا أسكنه كفاعل بمو يتك فين يلا أصل جت jébbi na asijaratu garab gi mooy wa aslajat mooy azharat feeñal na al usluuj usluuj mooy jébbit boo daggee garab ba pare muy jébbi noonu loolu jébbit boobu mooy usluuj xam nga usluuj rubaay la ci cosaan ëpp na rubaay nag fii léegi boo bëggee wax ne garab gi feeñal na usluujam danaan aslajati shajaratu ay azharat al usluuj usluuj nga dégg faala la rek muy tekki feeñal na ko <coughs> wastur na ko nëbbu maanaam na nga nëbbee ci faala la fekk tur xam ne ñeenti araf la nga nëbbee ci dara nga tëg jël tur woowu tëgg ko faala la indi ma foolam la nga ci nëbbee mu firi nëbb na ko ko xarmattu ni ki raax naa albinaa tabax ba tilan ci raax simaa ko ay satartuhu nëbb naa ko bil xarmat ci xarmat bil fati barqaatuha muur naa ko ak burqo burqo mooy muuraay sarbaltu solal naa ko sirbaal xam ga sirbaal moom nga tëgg fanla rek muy sarbaltu sarbaltu rajula mooy solal naa ko tubay sardaqtuhu muuree naa ko suraadiq suraadiq mooy mbaar yooyu ñuy teg ci buntu kilifa yi xam loolu day suraadiq nga jël tëgg ko faala muy sardaqtu al rajula mooy satartuhu bi suraadiq kon faala faala laa ngoogu danay ñëw ngir nérule danay ñëw ngir ne def nañ ko ci dara danay ñëw ne ngir ne eh, <coughs> tëgg nañ ko faala la ngir feeñal feeñal ko danay ñëw tëgg ko tëgg ko faala la ngir nëbbee nañ ci dara mu indi si sardaq nag shahid ne qaala wax na moom wayka bi ne huwa almunzilu numaana baytan samaauhu nuxuru alquyuli baada baytin musardaqi ci arab man de jaaxaloon nañu nit dafay am musiba ba pare di ko ree xaw ma lu leen jox xol boobu wóor mooy ku wàcce dafay nettali ni Kisra reyee Noomaan xam nga Kisra dafa jël Noomaan rek jàpp ko rek Noomaan buur lool boole koog ñay yi ñay yooyu waa Faris di xewe ñay dëggati ko ba mu léegi waa ji nag di ko mokki di ko ree moom Kisra al munziru mooy ku wàcce an noomaan noomaan hmm. bayta néeg boo xam ne sama huwa asamaan sa nuxurul xuyóoli mooy dënd ñeya fuyóoli hmm. kon maa ngi jum dënd ñeya ñeya fi la hmm. baada baytin gannaaw bu mu dëkkee néeg mu sardak na buñ suraadiq mu ne noomaan de néegi sura néegi am suraadiq la dëkke waaye daal boo ko <laughs> dugal dënd dënd manam teeg ba ay ay dënn ñay la ak ñu mëna a fas waaye nga lu mel ni nag ndeysaan nit du ci jaar ba pare nga ngay wane ci béy ci di ko xas arab lii seen jikko la dégg nga musaddaq xam nga fi it jàng ci benn affaire da na gis ci téré bi ilhaq yu bëri bëri bëri bëri bëri teggini ni fen yi fukk juróom ñeent mu jara di ñeent rek la nga teg ci sulaasi mazid muy douze douze plus quatre muy ñaata seize rubaa yi nag mu jarat euh, mazidam ñett la seize plus trois dix tëggin am beneen tëggin boo gis rek dañ ko yéege ci benn ci tëggin yooyu hmm? léegi nag buñ ñu yéegalee baat ci tëggin day yore day sarfu comme sarfoom صدق يصدق مصدق مصدق مصدق نعم. قالوا لنا احسن واختصار كلام قد قاتل وصيغه تقرن فعل من المركب تي بعد يتوغلو نيكي بسم الله وقال بسم الله ان نزلان واتنا وبن بس فعل دنج كو تغ سي مركب سي جمله قد قاتل وحده نعم. فريد من ويتو جرومي kon faxagara moo wéetoo nirule moo wéetoo def ci dara moo wéetoo feeñal moo wéetoo nëb nëbbee dara moo wéetoo nga jël jumla tëgg ko faxagara ngir gàttal wax ci wa ixtisaari ngir gàttal xikaayatin kalaamin nettali wax siixa goo xam ne tëgg nañ ko faxala la xaala kaw nii ànd ba mu nekk moom faxala mun farilande aji wéetoo fii jël xamsati ci de juróom doonal axir walis bu mujj bi faxala amul juróom yi de juróom yi mu wax léegi faanal rek moo ko am faanal mën mën nañ koo tëgg mu neen mu rakkab ci mu rakkab <coughs> naa ma basmila waxal bismillah basmala lañ ko tëgg rek dañ ko yéegee ci faanal rek inna la ne wàcc na waban musiba waxas bala wax na xasbulallaa wala nga ne xas bil sabxala wax na subhanallah wala sabxil xaw xala wax na laa xawla wala quwwata illa billah wala nga ne xaw xil waxal laa xawla wala quwwata wala xay xala wax na xay ala salaatin basmala wax na bismillah wala basmil waxal bismillah ñaar yëpp mën naa nekk kon yii maanaam boo xoolee jumla lañ jël tegu ko faala la ngir gàttal wax ji faala la moo jegoo juróom yi yaa ngi xam ne moo xam moo leen ci saahid ci faala la goo xam lañ ko tëgg ci marakab ne qaala wax na moom hind ne laqad basmalat waa ji moo wax ne laqad basmalat hindun gadaata laqituha wa yaa habaza zaka alxadisul mubasmalu ak ñoo mënoon a bëgg ñoom it baa xam nga ne arab dafa mën a wax ñoom dañuy wax caaxaan sax caaxaan gi rafet buñ la taggee mu gën a rafet buñ la xasee mu gën a <laughs> a ñaaw a fekk lu ñu xas ko mu ñaaw ñu fekk lu ñaaw ñaaw ñaaw ñu xas tagg ko ba mu rafet <laughs> ak yàlla may na leen laqad basmalat wax na bismillah hindun hind xadaata laqiituha suba sama dajeeg moom mu ne waaye xabaza ak baax zaaka al xadiisu boobu lay waxtaan al mubasmalu bañ wax bismillah mu ne waxtaan wañ commencé bismillah man ak hind de waxtaan wu rafet kon jeexal na maani yi mu ne fa baana kon leer na mi ma zakkar naa ci lañ tudd an na baynahuma nekk na seen diggante mooy faala ak faala la wajhay humumi ñaari anamu matale wa taxsiis ak jag ak jagloo li mën a xalaat ñeel ku xelu na maanaam am na luñ bokk ci maanaam mooy amal ak isaabatu kenn ku nekk ci ñoom ñaar am na maanaa yum jagoo gis nga waj ma wa fariq ak ak eh, intaaw eh, maanaam inaalatu axdu ak eh, yooyu mm, wax naa ne faala moo ko jagoo waaye nag xikaayaak jaaloog euh, satroog euh, sitroog euh, nu mu tuddati yooyu moom fàndaram moo ko jabo ba baana leer nañ ma zakkanaa te lañ fasal naa ñu teqale ko ana bay na maa nekkan seen diggante ay bàyyi na faala la rubaa yi ak faala bil fatti wajay humumi ñaari anam yoo xam ñoo ci bokk mooy isaaba fi baad ci yenn ci maanaay boo tax si am na fu yam jago su ko defee nag fii lay jeexalee ci maani yi ñu duggaat ci béyti ibnu malik yi mooy faula mudaaroom bi lan la war a doon faila mudaaroom bi lan la war a doon faala mudaaroom bi lan la war a doon waaye yooyu dana ci dana ci dana ci dugalaat mu affaire am rek ba téere di jeex in uridu al islam mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa